là, le bébé, une fois grand, ne sera pas aussi intelligent que l'on s'y attendait. C'est exactement ce que nous avons démontré aujourd'hui ici. Moi qui vous parle, je suis universitaire, mais j'ai été obligé de me soumettre à la réglementation traditionnelle du mariage traditionnel. Ma femme est avocate de Paris, elle est venue, on l'a amenée à Thiès, on a envoyé au village, les chefs de village, les oncles, les cousins, les amis, les malades, tous, avec leur véhicule, cortège, humble, pour aller faire tous les rituels avec les foulards, le, le, se soumettre avec le mari à la fumée pour voir qui va tousser ou arrêter ou céder le premier, faire le tour du puits, venir manger ensemble la bouillie. Il y a tout un ensemble de rituels. Aller faire le linge du village, voir tout le monde. J'ai été soumis moi-même à ça. Ma femme a été soumise à ça. Et nous sommes obligés. Et pourtant, on peut dire que nous sommes intellectuels. J'ai cet ancrage-là. dont nous avons besoin. La jeunesse n'a pas la chance de vivre ça. Et ce sont des personnes comme les mamans Calabas qui nous donnent l'occasion de nous replonger dans ce monde et dans cette réalité. C'est l'occasion pour moi de féliciter tous les artistes pour les belles prestations que nous avons vues ce soir. Je n'aime pas faire des promesses, mais on va agir. En relation avec Madame le maire, en relation avec Mustapha, pour accompagner les artistes de la commune. mais accompagner principalement aussi les mamans Calabas. Pour la, la passe-passe au festival, la arts y travaillera avec Sénat Vision pour leur donner également leur chance, bien entendu. Par rapport au patrimoine historique, on a visité cet après-midi l'église quasi bicentenaire de, de Joal, qui a la particularité d'avoir été le lieu où le président Senghor a été baptisé. Ça doit être connu, célébré et valorisé. Je dis à Madame la ministre, je pense que même si on n'agit pas vite, le président va prendre en charge tout, parce que connaissant, ça sensibiliser par rapport à la préservation, à la modernisation et au développement de notre patrimoine historique. Nous avons vu un génie, le génie créateur ce soir à Joal. Le dernier, la dernière à avoir composé, chanté l'hymne en CRR, je pense même ceux qui ne comprennent pas CRR, ont senti des sensations, ont eu des sensations fortes. Ça nous rend fiers. ça nous permet de nous approprier et de permettre à chacun de connaître les fortes phrases et les symboles dynamiques de notre hymne national. L'avant-dernier, qui s'est prénommé Moudjessiou, mais j'ai envie d'ajouter Moudjessiou Genesiou. Tellement ces propos et ces paroles nous enseignent, nous renseignent et nous orientent. Je vous en félicite, ainsi que tous les autres. tout cas, nous sommes très fiers. Je ne pourrais pas ne pas saluer et remercier mon grand frère Ibrahim Assar. J'étais très heureux ce soir de venir à Joal et de les rencontrer. Je disais ça à ma collègue, Madame le maire, parlant de son efficacité, mais surtout de sa discrétion. Mon petit village de Kerpaté, si on suivait la logique, aujourd'hui qui a reçu chef d'État, ministre, Premier ministre et partout, quand je lui ai parlé au nom de la solidarité gouvernementale, de la nécessité de sortir ces zones de l'obscurité, mais c'est en une semaine qu'il a envoyé presque, je pense, c'était une quarantaine d'agents ou d'ouvriers de, du village de l'ancien bâtonnier Pableti, où j'ai fait l'école primaire, jusqu'à mon village. Ils nous ont fait tout ça dans la discrétion, avec même Aliou n'en parle même pas. Mais je vais en parler aujourd'hui publiquement. C'est ça l'homme Ibrahim Assar également. Agir efficacement dans la grande discrétion, par devoir et par élan de solidarité. Chers grands frères, je profite de l'occasion pour vous remercier encore une fois. Et pourtant, dans notre bilan du président Macky ces grandes communes de cinquantaine de villages avaient à peine 4, 5 villages, 6 villages électrifiés. Aujourd'hui, dans ces communes, presque la moitié des villages électrifiés. Certaines communes ont l'accès universel à l'eau. Donc ce sont des bons en avant. Il des défis à relever. Mais je pense que le Sénégal marche fondamentalement vers l'émergence à travers le talent de ses dirigeants, à travers le patrimoine de ses dirigeants, aussi à travers la vaillance de sa jeunesse. D'où l'importance d'orienter ces jeunes vers la construction et non pas la destruction. Vers l'amour de la patrie et l'estime de soi en lieu place des, des, des doutes d'un avenir qui ne pourra être que radieux qui ne pourrait être que rayonnant si nous décidons d'en faire un avenir rayonnant maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di nuyu également le roi de la mer qu'on a salué ce, ce, cet après-midi en remerciant le roi et l'ensemble des autorités coutumières dans les prières pour le Sénégal pour le président de la République pour le gouvernement mais surtout pour l'unité nationale et la cohésion sociale saluer également un de mes proche collaborateur, le directeur général de MSAP, aussi originel de Joël Fadioud, dont l'engagement au côté du président pour le rayonnement également de son terroir avec Madame le ministre ne, ne sont plus à démontrer. Cher Aloïse, je vous remercie pour les accompagnements, pour votre disponibilité chaque fois qu'il s'agit de s'engager dans une telle dynamique. maa ngi gërëm bu baax a baax maman Calabas yi li ngeen Sénégal ngeen koy defal. président ngeen koy defal ndaxte yéen a ngi yeete yéen a ngi wane yoon yéen a ngi jàngale yéen a ngi fàttali li nga xam ne buñ ko xafattewul jëm kanam am yokkute am ngëneel dëgg la def ngeen seen wa def ñun gouvernement ñoo leen war a gën a jàppale mais am ngeen aussi chance bu mag mooy am maire boo xam ne nii li muy def ah waxuma ñu ñu koy def bariwul de culture ñu bëri dañuy fàtte ne parfois dañ koo bokk ak nguur ak gox goxaan mais dañuy layee ne koppar yi bariwut mais borom pexe moo mën koppar yu néew moom dafa jël am am am mën-mënam ay xameem ay am di jàmmam ay nitu kóolëreem ñëpp di leen xëcc jëmale leen Joal Fadiouth ngir bépp bànqaas bu ko dénk ci lim nekk loolu ñu mun koo suuxat daal di ko jëmbat daal di ko gën a màggal gën ko ñoŋal yéen ñi fi wax ñëpp kenn forcé wu leen kenn déyu leen li nekk seen xol li ngeen dund ngeen wane loolu ngeen wax ma ko ci gërëm di ko ci sant ndax ndaxte nag bu ñu denkee loolu lu mu ci def defal na ko président defal na ko ko xam mais man yombal na ma liggéey bi ma jox bu sama ngor mooy ànd ceeg moom li ñu am mu bari mu néew ñu bokk liggéeyandoo gën a ñoŋal cosaan ak aada ak taarix ci Joal Fadiouth bi nga xam ne nag Sénégal li muy rëy rëpp defe naa boo demee bitim réew bokk na ci dëkk yi ñuy gën a xam buñ koy lim. ci tubaab bi gën a weex tàll gën a sori boo ne Joal dëkk Senghor ñu xam ko fàttali ko màggal ko dëkk bu neexee wone la bu neex a wane woo la bu neex a màggal la ngeen am chance am mel noonu man am naa chance yàgg ànd ak moom ko gis ci oyofam bi ñuy yéexee ñëw tardewuñ de dugg ci dëkk bi kay ak oyofam xeebalul kenn soofalul kenn bu yàkkaltuwul ci lenn bu nekkee askan wi ko soxla ñu dugg fi ñu war a dugg wax ak ñëpp seeti ñëpp di leen masawu loolu ci xaar bi dañoo gëm nag président li ñu sant mooy humilité générosité disponibilité écoute interaction dynamique et permanente loolu la ñu sas lu ci amul leneen ci ñun la mais ma loolu mooy bëgg-bëggam mooy yéeneem du jeexal sans annoncer leen nag décembre bii di ñëw bëgg nañ ci jamono bii tombeek anniversaire am organiser un des plus grands festivals en Afrique de l'Ouest mooy le festival national des arts et cultures on a choisi la région de Fatick dans cette localité de Fatick def ko fa mu nekk un festival bu ñuy rendre hommage à au président Macky Sall pour tout ce qu'il a fait hier et aujourd'hui et ce qu'il compte faire dans l'avenir pour le Sénégal il en est digne il le mérite ay intellectuels yu bëree bëri ci àdduna bi dañ ma pare ñu bind ab téere ab mélange en l'honneur de l'action de l'œuvre de Macky Sall ñii jógee Afrique yeneen réew yi yeneen réew ñu bind dañ ko jox loola artistes yi dañ def ay production des prix seront lancés des des dizaines de pays africains seront invités des ministres et des chefs de gouvernement seront invités des artistes étrangers seront invités ce sera l'occasion de faire vibrer l'Afrique à partir du Sénégal par la culture et le patrimoine en montrant le meilleur de nous-mêmes la l'édition passée bi ñu def Kaffrine je pense tout le Sénégal l'a suivi rien de trop grand ne saurait nous être étranger et nous devons rêver grand agir grand faire grand c'est ça le propre du Sénégal on n'a pas le droit d'avoir un complexe d'infériorité on n'a pas le droit d'être pessimiste ce pays est un pays rayonnant c'est un pays donné en exemple nous n'avons aucune raison de désespérer ni d'être complexés on doit à la jeunesse cette jeunesse peut réussir ici, doit réussir ici et réussir déjà ici. Donc on n'a pas à nous embarquer dans les océans, comme l'a dit aujourd'hui le roi de la mer. Croyons en nous-mêmes, croyons en notre pays, le gouvernement, l'État, c'est vous, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Les ressources l'État, C'est à nous de les préserver, de les protéger, de les défendre. loolu bëggoon na wax ko te wax les femmes les mamans calabas bu ñu jógee ci lii dañuy jàppale baax a di leen gërëm aussi ci seen cadeau yi on a reçu beaucoup de cadeaux à Joal c'est la générosité de cette belle commune de cette belle ville c'est une tradition ici le temps ñu dem Dakar xool li ñu war a jàppale ak yéen au moins quand même les mamans kalbas 15 août bi aussi naa leen indaale quand même benn serite pour seen quinze août donc je vais donner à madame le maire pour pour maman kalbas yi quand pour seen 15 août jox naa bi ñi 2 millions ngeen jëkk ko pour bu ñu paree loolu dinaa liggéey ak madame le maire ak euh, Moustapha ñu xool ci appui aux artistes yi lu leen mën a organiser leen ci loo gën consistant les acteurs qui étaient là aujourd'hui on va voir comment les accompagner le studio mu ne ko wax Moustapha est plus grand connaisseur que moi avec Koudia directrice des arts on verra on va évaluer ce qu'il faut et à partir de ça on va réagir bien entendu mais en tout cas comptez vous président pour agir et après notre passage noter des évolutions plus positives et plus dynamiques Thank you.